salaamaaleykum àdduna salaamaaleykum senegaal maa ngi leen di ziar di leen baalu àq di leen nuyu képp ku fa nekk muy kilifa diine yi ak kilifa aada yi ñëpp maa ngi leen di bége di leen nuyu di leen jaajëfal yéen a ngi jàkkaarloo ki nga xamante ne mooy Issa nekk ci wàllum aar muy danse waaw tey jàkkaarloog tele bu mag bii nga xamante ne moo yëngal Sénégal yëngal àdduna KSTV waa Issa mooy benn jeune talent boo xamante ne mu ngi juddoo Géejawaay màggee marché bees yaroo fi nga xamante ne mooy kër maamam judd rek bëgg aar am pàcc yoo xam ne nag développé naa ko ci jaar naa ci saali yi naa ci bay naa sama waar ci ci samay moroomu nit ak nit jox leen cours jàngal leen tey jii ñu dem ba nga xamante ne tey ñu ngi ak seen métier bopp di ci dimbali seeni waajur. waa en fait man li ma dugal ci aar mën naa ne sama yaay moo tax ma dugg ci aar ndax man sama yaay artiste la woon. da doon def aar mais man bi ma nekkee ndaw dama doon dem di ko seetaan boobu mu ngi fecc indo su ma demee di ko seetaan bu paree ba pare damay copier moom li mu doon def dama koy copier ba tax na nangu ma woon jàng nangu ma woon def dara loolu rek laa doon def boo ma fekkee sax concours day am sax ñu ne xaar ñu dem indi Issa bu ñu demee indi tegal ma ma daal di ñëw bokk su ma bokkee gañe ko léegi bu concours bi demee ba bëri ñi nii dañ may xëccoo dañuy toog kii naan man maa jël Issa kii naan non doo ma jëlee ndax man xam nañ ne bu ma duggee rek damay gagné waaw kon tey ci maire bi laa copier ba dugg ci aar te rëcciwuma ko benn yoon nag. Euh, boobu nag maa ngi gën a nekk xale boobu moom <laughs> duma ko jàpp noonu boobu maa ngi gën a nekk xale boobu aar ñemewoo sax def yenn développé yi ndax bu histoire ak yow mbala nit ñi xeex ak yow ndax boobu aar dafa metti woon ndax boobu jamono yooyu télé yi bëri bëriwul woon télé yi euh, sur internet yi bëriwul woon. RTS rek moo fi nekkoon di lëmbee yaa ngi dégg mu metti woon trop nag ma jaar ci ay jafe-jafe yu metti yu difficile mais dama toog muñ ko gëm xam ne yàlla tey dina ma ci may tur te may na ma ci tur euh, yegg fi ma bëgg a yegg yeggal na ma fa. waaw jàng naa école nag ku mënoon jàng laa waaye <laughs> non classe bi moom dama koy leb <laughs> waaw man nag foofu laa bàyyee ndax waaw ndax man. buñ ma mësaanee na ma jàngi jil man damay former beneen groupe pour danse man boobu man danse moo ma sonal man bañ na ko ba bi ma dawee eh, jàng trois mois biñ ma waree jàpp pour tendre ma par sama musée dama ma jàpp ñu war ma tendre par ba si yàgg mu ne bàyyi leen ko ñu bàyyi ma wàccee ma ci école bi mu ne ma isil jamonoy isil xam nga isil mu ne ma isil ma nekk ci classe bi di isil loo xamante ne kenn xamu nu booy classe bi am ambiance si la ma jékki-jékkee dem sama maam mu ne ma kii yaa ngi sonn ci moom mais bëggul jàng kii danse la bëgg moo tax voilà ñoom ma sama maam man sama maam laa nekkaloon mais sama maam dafa bëggoon ma jàng ndax gisoon na ma ma mën si jàng bi dara mais bi ma demee ba nga xamante ne toll naa benn affaire boo xamante ne xam nañ ni kii aar lañ bëgg te ñun suñu kër ah, mooy loolu <laughs> ñu fay non du ay tukurool lañ sama maam pël la sama yaay pël la mais sama papa mooy lébu waaw mais ñun suñu kër ñun kër Moussa si diini lañ lañ bokk ñun suñu kër menn sama aar sax man su ma dugalee suñu kër daf leen di jaaxal dañ naan kii ndax fii la dëkk ndax ñun bariwul lu ñuy def aar ndax ñoom musigu arabe bi lañuy def waaw mais man maa ci ñëw def ci mbalax. waa hmm. dañuy di Issa moom dafa am sama benn euh, grand boo xamante ne animateur la moo mën naa ne animateur bu mag la Seydou Gadio di ko wax ne Seydou maa ngi lay gërëm di la sant kooku moo ma gis may fecc benn danse boo xamante ne danse su ndigg la quoi mun ne ma euh, mu ne ma pourquoi Issa yow lii waruta am tur mun ne ko man nan la war am tur ndax ñoom mag ñi maanaam bu ñu yàggee ci dara dañuy dem ba am ci expérience mu jékki-jékki dama bisi ni ki tey dee naa la damm ndigg mu ne ko ah damm digg nga ma tuddee waa amul problème yow yaay sama grand noo def noonu la ndax képp koo dégg ci ci fecckat yu mag yi muy Amet Thiou muy Papa Ndiaye Thiou képp koo gis rek bay na kooku bay na waar ci yow ndax yegg naa ak yow foo xamante ne tey ji jàpp na si tey tànk moo tax tey ñun artistes yëpp yi dëkk Baxdaad dañ ko war a delloo njukkal Seydou Gadio moomu noonu muy woykat muy danseur muy muy lépp ci aar war nañ ko delloo njukkal muy grand boobu noonu foofu la bàyyee ko. waaw loolu moom loolu moom moo ma gën a point boobu moo ma gën a neex ndax dafa nekk aar nekk métier boo xamante ne dafa noobale nekk métier boo xamante ne tey waruñu ko xool ba di ko tëqaleeg leneen ndax tey ñun ci boppam dañu war a valoriser fi mu nekk nii aar. ndax aar fi mu nekk nii bëgg naa dee aar fi mu nekk nii bëgg naa suux ndax képp ku ci bokkul da ngay ñëw imposer sa bopp ne ci aar bi nga bokk te waroo imposer sa bopp ne ci aar bi nga bokk ndax waaw c'est parce que ne ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk tet bi nekk mag ñi maanaam penc bu ci bu ci problème amee mag ñi dañuy ñëw taxaw waxtaane ko mais aar day toll foo xamante ne am na problème te mag ñi nanguñu génn toog waxtaane ko ndax mënoo mënoo xëy di nekk ci saal di répété di dem di jàngi xam-xam di jàngi yeneen danse yoo xam ne bokkul ak dansu Sénégal yaa ngi dégg di xiif di mar mel ni ku yor sa bureau di liggéey di wàcc di ñëw nga gis kenn koo xamante ne néegam lay tëdd moom daal day imp improviser benn affaire rek ñëw taxaw ne ci aar bi laa bokk te euh, li ci gën a doy mooy euh, média yi da ngay gis koo xamante ne day improviser dara ne aar laa bëgg doon ñu taxaw ne la dañ lay imposer li ñu lay imposer mooy que ne télé yow la ñuy invité lu ñuy laaj yow la ñuy laaj te mënoo ñu décortiquer si aar dara. maanaam yow dem nga ba nga xamante ne tey ji boo boo boo yeggee fenn sax maanaam boo yeggee fenn sax pour nga pour nga taxaw ne man aar lii laa ci jaar fii laa ci jaar mooy loolu mënoo ko imposer léegi ñun ñi nga xamante ne ñun ñooy euh, ñun ñooy joxe cours ñun ñooy répéter. ñun ñooy dem di ñaq di indi di génne colographe yi nga xamante ne moom la tubaab yi soxla di génne colographe yi nga xamante ne moom la yeneen pays yi soxla di ko taxaw di ko suivre ñun du ñu imposer léegi ñoom dañuy xool benn euh, benn ndey assu jóob rek boo xamante ne day nekk këram def téléphone am lëmbal ñu taxaw woo la ne la kaay yaa fi ne pour pourquoi dafa yombu dafa yomb loolu day rey day rey aaru Sénégal te aaru Sénégal warul de ñun ñoo yor aar bi nga xamante ne moo ëpp doole balaa nga ko gën a xam tey ji nga jóge fii dem Europe mën a jàkkaarloog tubaab yi boobaa ngay xam ne ñun suñu aar am na doole mais tey teguñu ko fenn foo xamante ne da ngay gis musicien boo xam ne sax day xool ki nga xamante ne moom moom métier bi du ko woode danaan wool ma Ndeye Astou Diop kooku moo dàq lëmbal lan mooy lëmbal nga lëmbal pour ñu gis sa cër xale yu jigéen dama bëgg ngeen xoolaat fi ngeen di teg seen tànk am na ñoo xam ne dañuy lëmbal mais mën nañ danse. Euh, te si la ëppee mais dem nañ ba yóbbaale ñi nga xamante ne tey jii ay maître chorégraphie lañ tey da ngay gis koo xam ne jàng na danse mën ko léegi bàyyi na ko di lëmbal. méttit lu ndax nit moomoo ko ki gàddu ay feram dem marché bees jënd feram dajale ko yóbbu ko këram denc ko si saagam sol baam boo xamante ne tey jii awraam fu mu toll góor ñi dañ koy gis. mënoo ko lu dul mettitlu doo ko jàpp fekk këram ne doo génn yaa ngi dégg mais mettitlu ko taxaw wax ak ñoom ndax nit ku nekk day juum nit ku dul juum amul ci kër àdduna mais buñ la waxee da ngay xam ne man mii kat damaa juum ndax ñoom ñu ngi bëgg a sànkaale ñoo xam ne bokkuñu ci woon tey danseur yoo xamante ne bokkuñu ci woon loo loo mënti gis rek ñu ne lëmbal bay xew man dénkante naa fi artiste bu mag boo xam ne ci label bu mag la nekk mën naa wax labelu labelu Youssou Ndour la nekk ma dégganteeg moom koo xamante ne ménagère am mu ne ma dafa dama soxla euh, koo xamante ne day lëmbal new ma dama soxla danseur de koo xam ne daway day lëmbal laa soxla te pourtant Michael Jackson fu ne lay jëlee danseur teg ko imposer ko lan moo tax mu koy imposer pour pour pour pour joxe euh, joxe benn euh, gis-gis boo xamante ne ci aar dafa am doole. répété dañ koy répété bu taxee du ko jouer dañ naan gonga pourquoi. woykatu Sénégal yi mënuñu imposer loolu daan naa gis Wally Seck di ko imposer di taxaw. si si foofu lañ ko bëgg a yóbbu mais aar nekkul loo xamante ne tey jii da nga war a taxaw ñu beddi la tey da ngay gis kilifa boo xamante ne day taxaw mu ne fecc nangam sanga patiti patata xam nga lu tax mu yox loolu sa parce que ne fecc génn say cër loolu dafa bokkul ci aar ñun bu njëkk ba bu ñuy mësaana a seetaani sabar da ngay gis booy taxaw ci banc bi di yëndu. ndax lan la ñuy bëgg dañ doon dañ doon du ñu gis li ñu bëgg a gis voilà duñ ko bë duñ ko mën a gis fu fu nekk la ñuy yundoo mais léegi da ngay taxaw ci étage bi fële ne di gis ki ki nekk lim la bëgg wan du la wan fecc de li mu la bëgg wan la lay wan. formation boobu noonu lañu war a génn ndax xam nga lu tax ñun métier bii ñu yor si la ñuy tedd si la ñuy teral suñu waajur si la ñuy teral ku ne. kon dañ ko war a dooleel man bugguma koo xamante ne dañ lay invité nga taxaw naan man nii laa mel nii laa mel sama kër nii la mel nangam sangam non gis nga nit looy dundee da nga koy aar yaa ngi dégg mu nga wan ne lii may dundee kat lii dama ko war a protéger pour ëllëg samay doom bu ñëwee wala samay rakk bu ñëwee ndax ay fan yi am na ay euh, treize personnes yoo xam ne ay xale lañ nee nañ aar rek lañ bëgg tubaab jalaaw laa leen fekk di leen jox danse tey bu ñu gisee lëmbal boobu noonu dañ naan moom moo fi ne te newu fi am na pàcc ca pàcc bu ne am na séeréel am na tukulóor am na li nga xamante ne moom mooy fecc olof am na man façon fecc bu ne mais mënuñu ko décortiquer teg ko ci taabal bi lan la ñuy décortiquer ay fer ay baa ay lëmbal non bu ñu géem loolu nañ nañ nañ nañ ñëwaat ñu ñëwaat bañ yàqal suñu bopp. voilà. loo xamante ne tey mën nga taxaw ci kilifa sax man mën naa taxaw ci kilifa di ko feccal ba mu kontaan ndax du ma sol tubéy bu xotteeku du ma bënn sama nopp am na yenn temps yoo xam ne newu ma ci. gis nga bëgg bëgg nit ñi xam la bu mu tax nga jaay sa der ba nga xamante ne ëllëg da ngay màgg nekk paa mën a jàkk doo jàkkaarloog sa bopp man Issa Zéfer am na loo xamante ne ñu bëri maa leen njëkk ci ci aar mais am na lu comportement yoo xam duma ko sax laal xam nga lu tax. man bañ na ko ba sax dañ naan Issa du sol du sol yenn tuba yi géemu ko sax xam nga lu tax géemu ma ko sa parce que ne damay xam ne ëllëg day ñëw te nit da ngaa war sa sa sa sa aar da nga ko war a defar gis nga bënn bii nii suñu diine mayuñu ko mais mën nga def aar te doo bënn man kër dëkk fu ma dugg dañ naan gonga te du ma bënn du ma xeesal du ma diw du ma xotti sama tubay te maa ngi bëgg a yàgg ci aar bi kenn mënul génn te ne Issa yàggul ci aar bi am na loo xamante du ma ko def gis nga nit buñ lay buñ ne lii baaxul noo yow boo gëmee sa bopp wan aar ngay dund yow loolu puus ko ndax xam nga lu tax il faut que nga dooleel tamit suñu diine gi ndax jullit lañ te jullit da ngay julli yaa ngi dégg da ngay jaamu yàlla am na loo xam ne bu ko diine bañee yow bañ ko yaa ngi dégg dañu ñëw di salteel aar dañoo ñëw di yàq aar ndax fan yi gis naa li fi jaar yëpp yaa ngi dégg man damay toog di génn di déglu di seetaan tey jii am na loo xamante ne nit boo bëggee boo yow sa métier bii ngay def nanguwoo nanguwoo ci saltel dara tey sa nawle boo ko gisee da nga koy respecté ndax jox ko cër ndax comportement bi nga xamante ne moom lay def ci métier bi mais boo tëddee sa kër gis koo xam ne dafa nekk ci métier bi xeesal bënn noppam ngay wax mu lay dam baaraam di la def nii yow si boppam da ngay toll benn moment boo xaman doo xam sax doo bëgg sax dund aar bi. waaw rafetlu ma ko xam tax rafetlu ma ko dañu toll benn moment boo xamante ne nit ñi buzz la ñuy soxla man maa fi def lii wàcc leen maa fi def lii man maa fi génne fecc bii te loolu du fecc moom li ma leex rek man li may wax man ci ñi ma ko cadré mooy sama xaritu waykat yi gis nga nit boo bëggee tey ji nekk haut di génn di jéggi frontière yaa ngi dégg da ngay wone loo xamante ne tey ji ëllëg dina voilà ndax tey ji doo dem Europe tubaab yi taxaw nga taxaw fa di wàcc ci suuf il faut que maître la euh, chorégraphie ngay teg. gis nga euh, tey jii ku gëm sa bopp nga nekk waykat ne man métier bi dama cee war a am xoolal Youssou ndur gis nga Youssou Ndour bu baax boobu ba léegi daf fee nekk xale bu ñëw da ngay ànd ak moom te doo ko yóbbul dara xale bu ñëw da nga ko fiy fekk te bokkaloon ñoom génération génération ñu mu bokkaloon wéy na dem nañ ba léegi mu ngi fi. bokkul ñoom seen woy dañ koy décortiquer defar ko ba mu baax mais nit buggul bul bëgg bës ba tax na nga ne da ngay am loo xamante ne da nga koy génne yenn ton way yoo xamante ne benn jour lay am ñaari jour romb dem way boo fi dégg day romb dem ana ay ñoom yuusa yi fi xewoon romb na dem sa parce que ne du qualité. qualité mën nga toog ay 30 ans ba dem ba màgget di ko déglu ñoom ci ci game boobu lañu war a game man artiste yu nekk laa ku nekk laa feccal artiste bu nekk géejuwaay fii ñëpp laa feccal mais billaahi wallahi wa taala képp ku ma ci feccal dama naan lii ak lii ak lii ngay doxalee ku ma ci gëm baax na ku ma ci gëmul nag dama lay bàyyi sa yoonu bopp mais boo demee tuuti da ngay am rëkk-rëkk danaan pourtant man maa fi newoon de mais xaw ma lan moo fi jëlee. nit da ngay gëm sa bopp liggéey pour ëllëg déglu naa benn émission benn télé ma dégg benn woykat wax loolu du ma wax turam nag te man maa moom daan lañ liggéey ma ko doon wax loolu mu ne ma nit da ngay liggéey pour ëllëg moo tax buzz day jeex succès day jeex mais am na loo xamante ne way yoo xamante ne du mës a jeex chaque jour dañ koy dañ koy cons ñun ci temps boobu lañ nekk. Issa euh, dañuy gis euh, euh, mhm. waaw Alassane Mbaye kooku sama relation moom njabootam ñoo ko sàkku ñoom ñoo ñoom ñoo ma indi seen biir ma ñëw seen biir ñu ñu wan ma loo xamante ne tey jii dafa dafa dafa dafa tooy sama xol maanaam ci aar lu ma nit musta defal ñoom moom lañ ma defal. ndax nit nekk ci jafe-jafe maanaam du ja jafe-jafe sax du jafe-jafe euh, maanaam nit ku nekk ci problème ma jël sama néeg jox ko war a dem feneen ñoom ñu woo ma seen bopp jël néeg jox ma jël dund jox ma ba tey ma xamanteeg Alsaan Mbaye ñu for hmm. hmm. hmm. bay loolu est-ce boobu dégg naa ko. rumeur boobu dégg naa ko xam nga am na ñoo xam ne boo leen xamee fa chaque jour da ngay dégg rumeur mais rumeur boobu. waaw rumeur bi. Euh, tey jii Alsaan euh, defal na ma loo xamante ne. Mm-hmm. bisam dama cee war a joxe sama bakkan. mooy li ma la doon wax sànq rek. joxuma xaalis joxuma dara. <laughs> néew ma wool Jean néew ma wool Paul dégg naa loolu ñoom waxuñu sax waxu xaalis dañ ne ma Alsaan dafa ma wooloo ay artistes te Alsaan ay rakkam laa xam rakkam boole maag yére bii ma sol Alsaan ma ko jox ak yeneen yére yoo xamante sama bay batan ba fees dell jox na ma ko ay yére di yër alalam di ma jox kon tey ji kooku bu xewlee bisam yaa ngi dégg jabaram bëgg ma yaayam bëgg ma ay ay ay ay rakku jabaram bëgg ma bu xewlee bisam dama ci dama ci xar sama tànk tubay man danse bi sax dama ne woon sax duma fecc ndax man boobu noonu maa ngi dajale pour biis pour nit ñi mën a dugg pour mën a dem grand théâtre yaa ngi dégg bi ñu demee grand théâtre ba pare bi ñu paree te dama jëlaat biis xam naa nag nit ku nekk day gis dara bëgg koo yàq moo tax ñu ne alsaan dama maa woo pour ma woo ay fecckat mais alsaan musum alsaan ba alsaan nit koo xamante ne dafa bëgg sax boo ñëwee ci moom nga am dant doonte soxlawu sax boo ñëwee si moom day bëgg nga am ndax nit koo xamante ne xolam dafa laab dinaan ko alsaan séeri maane mbaay dundal dundal 111 ans sans ordonnance baax nga yéwén nga artiste yëpp bu ñu meloon ni yow artiste yëpp bu ñu meloon ni yow tumuranke jeex fi ndax nag mënoo nekk sa li nga xamante ne moom mooy sa sa sa sa sa sa sa alal génne sa alal dafa dafa dafa da am na ñoo xamante dañ naan neexul mais moom da koy génne far force di dimbali ñoo xamante ne tey ji xamu leen di dimbali ñoo xamante ne tey dañuy yeewu yaakaar ci moom mbaay dundal di nuyu sama yaay maane euh, du nuyu sama yaay ajaratu jooja caam ñoom ñëpp ay ñoom ñëpp maa ngi leen nuyu su ma ko tegee si ajaratu jooja caam rek ñëpp nuyu naa leen man liñ may trompé sax day bëri xam nga lu tax c'est parce que ne man nit ku ma la gis artiste bu ma gis dama lay def sama bopp bëri na artiste yoo xam ne muy danseur muy waykat muy koo xamante ne laalu sax ciment beneen beneen aar lay laal su ma la gisee dama lay def sama bopp ba danga may tromper man damay foog ne man ak yow ñoo yem li lay li lay won leen loolu man damaa yor métier boo xamante ne tey nit ñi xam nañ ma ci te niñ ma ci xamee du ñàkk fayde lañ ma ci xamee yaa ngi dégg ndax man sama aar dama bay sama waar ku ma gis day xam ne kii kat danseur la nekkul loo xamante ne buzz moo ko indi ba tax na tey jii suñ ma woowee li nga xamante ne mooy programme mbala ñu woo ma loo xam ne dama ko war a gérer sama moroomu nawle artistes yi dama lay dama dama lay woo pour lu tax ma lay woo pour nga am mais pourtant ñoom dañ leen woo mais duñ ma ko wax duñ man man kes mennum déggul ma la ku ma tegal kaamil ma waat ko billaahi wallaahi wa suñ ma woowee liggéey damay woo sama mbokk artiste ne kaay pour nga am dara muy jigéen muy góor jigéen ñi bañ na ko ba bu ñu waxee dañ ma naan ma maa ngi lay sant di la gërëm. te dama man maay nekk nekk waykat boo xamante damay ñëw zéel la ba pare nga am problème mu kase xam nga lu ma la wax amul problème duma ko laal ndax ndax aar toll na foo xam ne dafa metti ba ci waykat yi dafa metti ci ñoom da ngay gis koo xam ne day jé jàkkaarloo bëgg fay batterie bëgg a fay clavier bëgg fay lu ne. pare am-am bi du demee noonu ci lan lay xaar ci wayaan bi lay xaar pour mën a boole joxe ñi ni seen kase nga pare mu taxaw di la xool xam ne yow mii kat grand bu am xel nga mu taxaw di la xool grand de affaire bi dama naan la noonoo ndax xam nga lu tax métier bi boo ci jiitalee xaalis doo dem. ndax tey jii métti na métti goo xamante ni il faut ñu toog defaraat ko muy ci wàllum way muy ci wàllum danse surtout danse bi ndax man fa laa féetee ndax tey jii. ibbi nañ benn groupe boo xamante ne group association des danseurs la yaa ngi dégg ibbi nañ ko mais tey su doon sama sago mañ ñi fi nekkoon ngànk aar xam nañ leen ndax aar kenn du ko wax Papa Ndiaye doo génne ko ci kenn du wax euh, euh, ñi ma fekkul ñi ma ñi ma fi doon dégg seen dérénation laay ñoom Yéli Thioune ñoom Pa Moussa Sonko ñoom di bajaan yaa ngi dégg ñooñ kenn du wax si génération bi di kii ndax Ahmed Thiou maa moom bokk nañ génération daan nañ ànd di géeyu ji di dem di ñëw ndax ñoo bokkoon dëkk Baxdaad maa moom yaa ngi dégg mais tey ji war nañ mën a toog xam ne ñoom bàyyi nga sawaar ci aar il faut que bul bul métier bi bu mu la may rek nga taxaw ne métier bi kat dama koy salteel il faut que nga def ko loo xamante ne tey jii ëllëg bu ci ñin ñëwee ne ah diw benn Papa ci benn Eumeudi Badiane wala benn Pa Moussa jàppoon nañ ci aar bi defaraloon nañ ko sagalaloon nañ ko ormaalaloon nañ ko tey ji loolu day neex jigéen ñi ñoom it xam nañ leen seen génération am na ñoo xam ne ñu bari fekkee naa leen fi am na ñoo xamante ne fekk ma leen fi ñu toog woo seen mbokk euh, jigéen ñi wax leen ne leen comportement bi baaxul ci aar ndax nit bu taxaw di génn si yow rek li muy génn si yow su suuf rek la soxla bu xësee ba am sa suuf jeex na te loolu ñun dañ ko war a bañ ndax ñun saa ndey yi nga xamante ni ñooy nekk ci aar ñun ñun ñoo leen war a protéger mais pour ñu protéger la il faut nga sàmm sa bopp mës naa ko wax benn danseur mu woo ma téléphone ne ma diw de nee na dama maa soxla ma ne ko bu dee métier la sa sa métier la demal nga liggéey ko mais bu dee caaxaan la bu ko caaxaanee yaa ngi dégg duma gis nit ki nga juum ma ne dama lay topp ci li nga juum li nga juum mën nga revenir aat ba defaraat ko am na lu fi jot a jaar am na fi jot a jaar am fi problème ci aar yaa ngi dégg te pourtant ay danseur lañ ci famille yu baax lañ bokk ci famille danseur yu artistes yu baax lañ bokk mais juumte taxul nga ne damay continuer di juum revenir aat defaraat sa dund bul xool ñi nga xamante ne ñooy wax ndax ñoom chaque jour ñoom sa défaut la ñuy xool waa sama kàddu bu mujj la nag su ma jàkkaarloo caméra bi rek euh, te tudduma ki nga xamante ne mooy suma yaay moom mi nga xamante ne dama koo bëgg def ko sama biir xool di ko ndax di ko ñaanal ba li ma soxla ci moom mu yegg ci moom ndax sama digganteeg sama yaay Sénégal yëpp xam nañ ko man liggéeyuma pour keneen man damay liggéey pour sama yaay man lu ma am sama yaayee ko moom su may wax si moom sax sama xol day xaw a tooy ndax dafa am foo xamante ne daf ma jege muy mag muy ndaw muy ku ma xamul xam na sama digganteeg sama yaay lépp lu ma am yaay yow yaa moom lépp lu ma liggéey lu ma ñafe yaa ko moom seement bu mu dugg sax yow yaa tax ma dugg ci ndax lan pour teral la ndax dafa am foo xamante ne da ko nekk sama biir xol di gërëm ñi nga xamante ne ñooy sama kilifa ku ci mel ni ki nga wax Alsaan Mbay mënuma ko ñàkk bañ a gërëm Séeri Maane Mbaay jabaram baax lool jullite gëm yàlla bëgg nit bëgg doomu aadama maa ngi leen di jaajëfal di leen bége di leen ziar di gërëm sama caméraman bi nga xamante ne ku baax la xol bu rafet la yor di jàppale artistes di jàppale ndaanaan yi sama émission ak yow dama koy sàkku ndax man maa la bëgg daal gërëm naa la sant naa la di bëggee ñëpp di bëggee fant si Issa yëpp ñëwuma fi nag pour wane nii laa mel non dama fi ñëw pour dimbali suma bopp dimbali waale suñu bopp ñeneen ak ñeneen ndax aar fi mu nekk nii noonu la war a doxee mais du dañ lay invité émission rek nga taxaw ne maa toj fii maa rajaxe fii maa mën fii maa déedéet li ngay liggéey il faut que nga koy protéger di ko jëmmal pour ëllëg ñii ñëw ne mankat sama baay Issa jaaroon na fi mais da doon wax muy jub non bul wax muy dëng ok gars yi merci maa ngi leen di bégg di leen jaar.